message ou menace yëpp man mii mais tonton Badou lan moo tax ngay envoyé Amadou ay message joor mi toi. insiste naan yaa ngi woon depuis 5 jours je t'appelle tu ne décroches pas ton téléphone nga la laaj lan la. yow loo déggu ci Thiès laa nekkoon. su fekkente ni bëgg nga jàmm bëgg sa jàmmu yaram bul ma fenn wax ma fi nga nekkoon. ndax bu dee sa ngaaka bële ngay nax man yomb ma nax doo nax. je te eh, permets eh merde ce bullshit bi nga nekkaloon. je m'en fous de lui tey nga may doog wax sa jëkkër yow ya, man ngay taxaw di défendre kooku sama kanam. hee yow na xam nga lan la wax ak yow mi nga bëgg a jot yow sonal nga ma la yow ku soxal nga tak kau bayar? sa orang tak nga ne du ko jëriñoo. du la jëriñoo maa ne du la jëriñoo yow man di la jëriñoo wax lu bu ma la soxlaatee woo la décroché woo dina gën a metti ci yow. bàyyi ma jabaru jàmbur la. eh xanaa bi nga sàllitee ngay doog a xam ne jabaru jàmbur nga ne woon naa eh, la heure bu ma la soxlaa ñëw lu si ma defoo ko dina gën a metti ci yow. caabi bi ko dupliquer. jox ma ko te bu may génn léegi na nga topp sama ginnaaw nga def ko. ah nga jox ma clé bi. heure bu ma la soxlaa. fii eh, comment est-ce qu'il a pu faire ça. Amadou kii dara dalu ko bi dajaloo si bopp bi dama yaakaar moo ko commencé dofloo mais tey lay tey. John! John!